postu Kër Ayib nekk frontière Sénégal ak Gambie nekk fii ci biir commune bu sa baax lu toll ci juróomi fan ñi la di safooru camion yi amal li la di grève lu ñeewal grève yooyu bokk na ci balis bu leen di polisi Gambie di tegal mu tollu ci ñetti junni ak ñaar téeméer dem ak ñetti junni ak ñaar téeméer dikk mu nekk nag lu metti lool rawatina juróom benn junni ak juróomi téeméer yu ñuy fay fële ca pont ba loolee tax nag ñu amal ab grève ñu sàkku def ci ñu mën a liggéey ci noonu kilifa yu ngànk wàllum dem ak dikk bi amaloon nañ tey am waxtaan bu am solo ngir saafara jàngoro boobu waaye dafa mel ni ba léegi chauffeur yooyu d'accord guñu ci lu ñu teg ndax ñoom dañoo bëgg ñu dindi loola lépp bokk na ci lu tax chauffeuru camion yi lay continuer di taxaw ci kaw tali bii rek ne benn camion du dugg ba ñu saafaraal leen boobalee jàngoro ñu àndandoo teewlu seeni kàddu man la Bagna Souré euh, délégué régional du syndicat national des transports de proximité, en même temps représenté cadre des cadres des syndicats unitaires euh, du Sénégal. Donc, nous sommes venus à Caraïbes si ay jafé jafé yo xamante amno ci na euh, euh, camions yi gros porteurs yi ak frontière si affaire yi visage yi bon affaire yi aussi balise yi waaw balise yi ñi nga xamné ni wa Gambien yi ñu ngi koy imposer euh, chauffeurs yi sénégalais yi donc mu nekkoon ay jafé jafé ba nga xamné dem nañ ba mënatuñ continuer donc légui yalla def na ñëw nañ euh aviser ñi nga xamné war nañ ko aviser muy euh suñu euh responsable syndicat yi avisé nañ leen ku si mel ni El Hadj Ousseynou Karamba bi yàlla def na moom tamit jàllale nañ message bi fu ñu ko war a jàllale ba mu yegg si autorité yi yàlla def le premier ministre Ousmane Sonko délégué le directeur des transports muy Valdiodio Ndiaye mu ñëw fi tey ñu àndoon ak moom ñëw. gis autorité yi nga xam ne ñoo nekk muy la police la gendarmerie aussi euh, euh, la douane comme nous lañ ko defee aussi en Gambie dugg nañ ba si frontière bi waxtaan nañ ak euh, euh, euh, la douanière gambienne waxtaan nañ fa daal waxtaan yu yoo xam ne pour euh, jàmm ak salaam yu si frontière bi ba yàlla def na yaakaar nañ si am gain de cause waaw am nañ si yaakaar bu baax a baax a baax jafe-jafe yi doon am yëpp yàlla saafaraal ko ba nga xam ne ni ku nekk dina mën a delluwaat si jàmm ak salaam bi si dem bi dikki bi euh, ba nga xam ne nii euh, benn jafe-jafe dootul am incha allah rabbi a Diop ñu gën ma xam ci Vieux Diagne responsable syndical de l'union des étudiants du Sénégal sama secrétaire général tudd Gora Khouma waral taxawaay bi mooy que ne euh, camionneurs yi fi traversé di dem di traversé pour dem Casamance euh, Gambien yi ñoo xëy un bon journée dañuy balisé oto yi balis bi mooy ça ça veut dire que ne dafa am benn genre appareil bu ñu la tegal rek bu wane que ne dañ la koy nga traversé ba ba ci beneen frontière bi ñu dindi ko mais ci biir loolu da ngay fay 16000 francs ñoom nag dañ ko def pour raison de sécurité sécuriser seen bagage comprendre bu baax li ma la wax léegi ci biir loolu ñun nag dañoo bañ loolu parce que ñun dañoo am dañoo valable pour la traversée ci biir valable pour la traversée boobu nag comprendre nga. ñun ñu taxaw bañ loolu comprendre nga léegi nag chauffeur yi seen bopp taxaw nañ wax ne du ñu fay 16000 francs yi te 16000 francs dañ ko doon de part et d'autre côté bii ak côté bële yëpp mhm. léegi nag dans ce waxtaan nañ ba ñu ngi commencé am consensus man maa ngi tudd Aliou Yadde dëkk Kaolack ñu dañoo am lu ñu naqari fii ci dëkk bi lu ñu naqari ci dëkk bi lenn rek la maanaam 16000 aller 16000 retour plus montage yu bëri yi ci Gambie presse seen poste yi da ngay ñëw viser quatre mille quatre mille dem poste douanier loolu lañ bëgg mu dakk ci réew mi ñu dañoo sonn ci réew mi donc après boo ngi nekk vingt cinq kilomètres kilomètres yi ci nekk lépp coono gi nga ciy daj doo ko daj sax Sénégal boo doon dem Mali doo ko daj kon maanaam ñun loolu moo ñu naqare léegi nañ dindi maanaam seen seen seize mille balisé yi nañ ko éliminer maanaam gars dañoo maanaam dañoo ñoom balisé bi ñu tagaatoon balisé aller ak retour loolu mënut a nekk ñun comme loolu la la ñun dañ koy bañ parce que doo balaa yow balaa balaa ngay xaar nit di la bañal da ngay sa bopp yow miy liggéey ba pare ñoo ñu fi jóge fi léegi gi di bokk naqar gi Baye Gora moo ngi bokk ak naqar gi sànq la fi jógee ni fi toogoon kon léegi moom naqar gi moom dem na ba foofu gisante naa ak ñoom seen njiit yi ñu toog waxtaan mais ñoom am na loo xam ne dañ ko dindi am na loo xam ne dafa des ñun li ñu dindi mu des dañoo bëgg mu loolu jeex tàkk. nañ dindi lépp lépp nañ ko dindi. ñaari seize mille yi ñun mënuñ koo supporter. cinq montages yi ñu def fii policiers yi mënuñ koo supporter ñun nañ dindi ak bas ak ak bi nga xam ne boo ko yéegee trente mille ngay fay ñu tegaat deux mille cinq cent muy trente mille cinq cent nañ wàññi pont bi. nañ wàññi moom ñun nañ ko wàññi mais poste yi seize mille yi na dañ ñaari seize mille waaw loolu la ok loolu lañu am lu ñuy wax. waaw ñun nag wala taxaw rek ba heure bi amee dañuy taxaw. bàyyeeku ñu de bàyyeeku ba déwén nag ñoo ngi fi. nekk d'accord ñu duñ fi jógee te benn oto du jàll.